الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وكجلدي جناب سنتيس برم تبارك وتعالى لجلتي يرنتبي صلى الله عليه وآله وسلم برم تبارك وتعالى daf ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci diine yàlla ji nga xam ne mooy buum gim yoor képp ku ci jàpp mucc mu ne jàpp leen yéen ñépp ci buum googu te leen tàqalikoo jàpp leen ci buumuk yàlla gi te bu leen tàqalikoo nit ñépp dafa mel ne dañoo tàbbi ci teen ñu yoor leen genn buum goo xam ne ku ca jàpp buñ ñoddee nga génn ku ca jàppul nag buum nga dana génn bàyyi leen fa borom bi tabaraka wa taala tudde ko buumug yàlla muy alquran ak sunna mu ne jàpp leen cëpp leen tàqalikoo waxaat moom sunu borom tabaraka wa taala ne wala takunu min bu leen bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaaleeg yàlla dara ñooñu mooy ñan mu ne min alladina farraqu diinahum wa kaanu chiyaa mooy ñi nga xam ne dañoo tàqale seen diine nekk ay kuréel yu dul jeex kullu xisbin bima ladayhim farixuun benn kuréel bu nekk ne lam nekk rek mooy dëgg lu dul loola du dëgg bu leen bokk ci ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ne xam leen ne ñi leen jiitu woon muy yahudi ak nasaraan yi tàqalikoo nañ ba àgg ci xeeti kuréel loo xam ne mat na juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar mu ne xeetam wi dana tàqalikoo lu ëpp loolu loo xam ne dana dem ba mat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett mu ne juróom-ñaar fukki ak ñaar yayoo nañu sawara benn rekk moo ci yeyoo àjjana benn boobee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne booba mooy ahlul jamaa mooy ñi topp yonent bi sallallahu alayhi wa mu leeralaat moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee ñu ne ko ñooñu mooy ñan yow yonent yàlla bi mu ne mooy ñi nekk ci lu mel ne lii ma nekk bis nekk tey man ak samay saxaaba ñi nekk ci loolu ñoo ñu mucc bu kenn dégg loolu nag xadis bu wér boobu ngir li ci nekk ci ay mbir yoo xam ne lu bari ci ñi ko déggul tax nañu jàpp ne des koo war soppi wala ñu jàpp sax ne xadis bu wérut la waaye fekk na la koy waral mooy dégg gu ñaaw léeg-léeg nit ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa nan lay mën a doone juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett juróom-ñaar fukk ak ñaar yépp tàbbi sawara mu des benn rek kon day mel ni ñu néew ñoo ci tàbbi àjjana waaye fekk na loolu firiwul ne li ëpp ci xeet wi sawara lañ jëm firiwut loolu ndax kuréel rekk la wax waaye kuréel ba xamoo lim ba nu mu benn boobu yi di mucc it waxula lim ba nu mu toll kon benn kuréel mën naa gën a bari junni kuréel kon foofu am lënt nekku fi lim wax ne ñoom ñépp ña nga sawara it wala yeyoo nañ sawara ñu ci bari dañ cee déggee ne ñooña dañuy dugg sawara sax fa ba faw waaye déedéet lam ci jublu mooy ñoo xam ne soppi nañ lam nekkoon ci wàllu dundiin tàbbi ci li ñuy tudde bidaa loolu ku ko def sawara nga yeyoo waaye nag duñ fàtte ne képp ku faatu yóbbaale imaan du sax ci sawara bu fa duggee dañ koy buggal lu toll ne lam yeyoo génne ko yóbbu ko àjjana dafay tolloog li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida altaqa almuslimaani bi sayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnaar ñaari jullit suñ dajee di xeex ku ne yor sa jaasi di rey sa morom neena na ñoom ñaar ñépp nga sawara te ay jullit lañ kon du dugg sawar ak sax fa waaye ñu ngi ci bàkkaar boo xam ne mën na leen a yóbbu sawara te bu leen fa yóbboo danañ leen bugal bu ñu leen bëggalee ginnaaw ay jullit lañu woon danañu leen génnewaat kon xadis bi am lënt nekku ci lu leer nàññ la li ñu ciy jële mooy xeet wi dana ko ay kuréel yu bari te loolu am na teg nañ ci suñ bët mu wane ne benn kuréel rek moo ci ànd ak la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nekkoon kuréel boobee nag firiwul ne menn mbooloo lay doon moo xam ne ci benn dëkk la ñuy ne wala ci benn quartier la ñuy ne wala dañuy tudd seen bopp aw woo nit ñi ñu ñëw dugg si ci ñu ne ña nga ne ñooy alfirqatu naajiya déedéet waaye ay melokaan la yoo xam ne su nit ka nekkoon cim réew moom dong yor ko fa it kooka ca kuréel ba la bokk kenn mën naa nekk ca Chine keneen nekk ca sow keneen nekk ca penku keneen nekk feneen kenn ku ci nekk bokk ci alfirqatu ya muy kuréel bu mucc ba te amaana ñoom sax xamante kenn ci ñoom musta dégg sa moroom waaye ñoo bokk luñ nekk moo tax ña ko doon dund ca jamonoy saxaaba ya ak ñi koy dund ci mujjug jamono bokk nekk ca lu yonente ba nekkoon ñooñu ñëpp ci benn kuréel boobu ci lañ nekk kon bu kenn wax ne kuréel bu mucc ba mooy kuréel sàngam daal di tudd tur wa moo xam da ko jox turu ab association wala ab mbooloo wala ab organisation wala lu mel noonu déedéet li nga mën a wax daal mooy xàll wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàlloon déggee ko diine di ko ko dunde moo ki saxaabaam ak ñam àndaloon ak ñañ yar xàll woowee ku ci jaar yaa ngi bokk ca kuréel booba kon mbokki jullit yi jaadu na bépp jullit bu mu mën a doon ngir mu mën a mucc ngir mu mën a mucc ëllëg bokk ci kuréel bu mucc boobu jaadu na ma xam mu xam kuréel boobu ci luñ nekkoon ndax mu mën caa nekk moo tax ñu fa yéene tàmbali ci taxawaayu tey bii waxtaane lenn lu jëm ci seeni melokaan xëy nañu ñu la ca des ci beneen taxawaay kuréel bu mucc bi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu fàttalikuwaat lim wax moo di ne jullit yi danañ tàqalikoo tàqalikoo gu ëpp ga yahuud ya ak nasaraan ya tàqalikoo tàqalikoo googee kuréel ya lañuy bari bari benn ca mucc bi ca mucc mooy bi nekk ca lam nekkoon moo ci saxaabaam kon kuréel boobu bokk na ci ay melokaanam mooy bi nga xam ne diineem aw doxinam ci wàllu diine li ñu tudde manhaj muy am ngiram muy ngiru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba ya jullit bi nga xam ne loola rek la soxlaa xam ba jàpp ca su ko xamee jaar ca yoon woowa kooko borom bi tabaraka wa taala may na ko tawfiq ndax kat yonente bi dañ koo laaj ñooñu ñooy ñan mu ne mooy ñi nekk ci lu mel ne lii ma nekk tey maag samay saxaaba amul dolli amul wàññi ñaareel ba kuréel boobu xam na ne doomu aadama jiy dund ci kaw suuf faaw juuyoo di am seen biir juuyoo ko mën naa doon ci seen biiru dund waaye seen diine daf koy àtte mën naa doon ci seen biir diine waaye ba tey seen diine yi da mooy ñi nga xam ne su juuyoo amee ci seen diggante ñu delloo ko ci alquran ak sunna mu àtte leen saa bu juuyoo amee ci seen diggante ñu delloo ko ci alquran ak sunna mu àtte leen xam ngeen ne ngi dund jamono joo xam ne juuyoo bari na lool jéggi na dayo lool li jullit yi di dund tey wone na ko génn bëkk démb rek wone na wone na réew moo xam ne lim bu néew la diggante bi ab dénd bu bu néew a néew la yaatuwul nit ña bariwuñ boo leen xoolee réew yi àdduna yi ci des ñi dem ba lu mat ñetti feet man faa amandoo ñetti tabaski bis bu nekk am ñuy tabaski am ñuy bokk sax ab koñ ñii di tabaski ñee tabaski wuñu wala sax benn kër xam nga ne loolu ak tàqalikoo la goo xam ne jaaduwut kon mooy ñi nga xam ne su tàqalikoo amee ci seen diggante ñu delloo ko alxuraan ak sunna mu àtte leen kooku ci seeni melokaan la bokk lu alxuraan ne nii la sunna ne noona la jeex na amatuñ ci soxla amuñu soxla ci leneen ñetteel ba mooy ñi nga xam ne su ay kàddu jibee doomu adama yi wax seeni kàddu kenn ku nekk sa kuréel wax wala sa njiitul kuréel wax yàlla wax akub yonentam ka nga màggal ak loo ko fonk fonk ak lu mu rëy fi yow waxam su juuyoog waxu yonent bi ak waxu yàlla ki bokk ci kuréel booba màndarga ma mooy waxi yàlla akub yonentam lay jiital waxi yàlla akub yonentam lay jiital maanaam moom lay jëfe bàyyi waxi keneen kum mën a doon borom bi tabaraka wa taala moo ko wax moo ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi yàlla laa tuqaddimu bayna yadi wa rasuli bu leen nangoo jiital kenn kenn ci yàlla akub yonentam ak loo ko fonk-fonk muy waajur di ndey wala baay wala muy ab sëriñ boroom xam-xam turu woo ko mën a jox ci àdduna bu doon ca saxaaba yi sax nag ridwanullahi alayhim ajmain ginnaaw ay bindeef lañ yoo xam ne danañ juum comme li ñu ci des ñëpp di juume suñ juumoon ba wax loo xam ne juuyoon ak la yonente ba sallallahu alayhi wa sallam wax saxaabi yu boobee luñ ko màggal màggal ak luñ ko fonk-fonk dañuy teg ay waxam ca wet ga jël wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu mooy bi nga xam ne jaamu yàllaam la muy jël di ko jaamoo yàlla nga xam ne suñ ko ca fekkee ne ko lii ngay def loo ci jublu dalay wax ne damay jaamu yàlla bi maanaa dama ciy wut tuyaaba kuréel booba la la koy jàngal bokk na ci mooy la ñuy jaamoo yàlla ci alquran ak ci sunna lay jóge la ñuy jaamoo yàlla ci alquran ak ci sunna lay jóge ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu ñu wàccee ci moom alquran mu leeral ko ci sunna sunna nag mooy ay waxam ak i jëfam kooku mooy ki nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo def mu nekk maasuum mucc na ci njuumte mucc na ci njuumte loolu moo tax lu mu andi lu ne rek mënees na koo jël ku dul moom nag ci bindeef yi lu dara jaam màgg màgg fa yàlla lum rëy rëy rëy fa nit ña nu kàttanam mën a tollu jàppal ne mën naa juum la ko tàmbalee ka gën ci xeet wi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy abu bakar as siddiq radiallahu taala anhu ba ci ka gën a suufe ci xeet wi wala ka nga jàpp ne moo ca gën a suufe nekk ci diggante bi ñépp mën nañoo juum ba mu des ki nga xam ne borom bi tabaraka wa moo koy jubbanti su naroon a juum kooku mooy kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al imaamu malik rahimahullah daf doon wax ne mooy borom ngir mi nga xam ne lu bare bare bare bari ci nit ñi moom lañ topp daf doon wax ne kenn ku ne say wax day am luñ cay jël ak lu ñuy wacc ba mu des kenn muy yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu wax rek noona la borom bi tabaraka wa moo ko wax moo ko bind sàkk ko defar ko ba mel noonu garde ko ba du du juum wa ma yantiq ma yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha loolu moo neex suñu borom tabaraka wa mu am kuréel boobu bokk na ci seeni màndarga moo di mboolem saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp dañ leen a bëgg fonk leen ormaal leen jox leen cër duñ ci wàññi daraje kenn duñ ci wàññi cërub kenn ñépp lañ boole bëgg loolu mooy melokaanu alfirqatu naajiya xam ngeen ne ay kuréel feeñ na yoo xam ne li ñuy yàq saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ñuy sotti ci seen kaw ay der leen ko xas ba àgg ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu leen neex ñu wax ko wax leen ko yooyu kuréel la chaque ne yu réer lañ yu teggi yu jàdd yoon yoo xam ne lañuy wax su fekkoon ne dëgg la kon dañuy wax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon yar bi mu doon yar saxaaba yi yar bu échec la wala yaasu billah day mel na ñooña loola la ñuy wax ndax yonente bi alayhi yar ay nit ba borom bi tabaraka wa taala ne ko ñii day gërëmloo naa leen ñii day niñ mel noonu la seen ngëm gii day ku ñëwati ëllëg yor ngëm gu mel noonu xamal ne jub nga yow nga ñëw ne ñooñe ñëpp ay yéefar lañ wala génn nañ lislaam kooku laa chàkk ne yow yaa sànku yaa réer la nga leen askane loola ci sa kaw la dal waaye almuhim mooy ahlu sunna wal jamaa saxaaba yépp seeni soppe lañ ñuñ fonk lañ ñuñ ormaal lañ bokk na ci yooya melokaan moo di mboolem imaam yi fi mas a jaar ak boroom xam-xam yi nga xam ne seen yëngutu ci lislaam la nekkoon lislaam yi kese tax koo jóg ñooñu ñëpp dañ leen di fonk ormal leen ña faatu ñu leen di ñaanal yërmaande di jël ci seeni wax ak seeni jëf la dëppoog alxuraan ak sunna la ca juyoog alxuraan ak sunna ñu delloo ko ndax ñoom ci seen bopp imaam yooyu boo ko tàmbale woon ci imaam yi nga xam ne ñoom la ñuy askani ngër yi tey ci ñoom la tàmbalee kenn ku ci ne daf doon wax ne su ma waxee wax mu juuyoog li yàlla wax wala yonent bi wax ko nee teg leen samay wax fële te jël waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk loolu jëlee nañ ko ci yow kon ka ànd ak ñoom noonu lay jëfe bokk na ci melokaani kuréel boobu moo di woo mboolem jullit yi ak fu ñu mën a nekk ngir ñu boole seen kàddu joxante loxo doon benn waaye ci kaw pas-pas bu leer nañ ci kaw alquran ci kaw sunna ci kaw topp asalafu saalix muy ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon jàngal leen ak ña topp ci ñoom bokk na ci melokaani kuréel boobu moo di bañ ak naqarlu wépp yoon woo xam ne xotti nañ ko mu juuyoo ak yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax woowa yoon la tudde yoonu biddaa ñu bañ biddaa lañ ñu ko sori lañ ñu ca amul naqarlu lañu seenum xëy bu ñu xëyee ba ba ñuy wàcc lu ñuy wax wala ñu di ko jëfe dañoo jàpp ne loola luy indi sunna di soril biddaa la loolu moo tax ñuy yëngu ci loola kon loolu mooy seen melokaan ndax dañoo gëm ne ginnaaw dañoo gëm ne nit ñi dañoo war a bennoo te la leen mën a bennale mooy dellu ci li yàlla indi woon kon dañoo gëm ne lépp lu nit xotti lu wuuteeg li yàlla indi woon loola luy tàqale nit ñi la waaye du leen du lu leen di boole kuréel boobu bokk na ci seeni melokaan fekk ay sunna yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko indi woon moo xam ci jaamu yàlla la moo xam ci pas-pas la moo xam ci jikko la lu bari ci nit ñi raafal ko walla ñu rey ko ñuy liggéey di ko delloosiwaat di ko dundaat ci biir mbooloo mi ndax mu mën a tasaaroowaat ba jullit yi mën koo xam mën a tasaaroo ba jullit yi mën koo xam loolu ci seeni melokaan la bokk mbokki jullit yi bokk na ci melokaan yi gën a rëy ci melokaanu alfirqatu naajiya moo di alyaqiinu fillah ñu am kóolute lañ ci seen boroom gëm ne lim digee ne day am faw day am lim wax ne du am kenn mënta tax mu am mukk lam wax ne moo baax mooy baax ba faw lu dul loola itam mënta baax ak ña toppalee lu mu bari bari ak ña toppalale lu mu néew néew kon yàqin boobu am nañ ko ci yàlla bokk na ci seeni melokaani bi yàqin boobu ñu am ñu def ci sabaat mooy sax ci ma ne su leen cee jële moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci melokaani kuréel boobu mu ne laa tasaalu taaifatun min ummati ala alxaqi zahira ak lu jamono yàqu-yàqu dana am kuréel bu jàpp ci dëgg jàpp ci dëgg ba feeñal ko mu ne nag mën nañoo am ñu leen ñu wuuteeg ñoom lool ñu leen bañ lool ñu leen sori lool waaye nee na ñooña duñ leen mën a lor maanaam mënuñu leen faa jële loolu borom bi tabaraka wa taala moo ko dogal xatta yatiya amrullah ba keroon ndigalul son borom tabaraka wa taala di ñëw ci ne loola dafa war a jeex mooy suñ demee ba yiw amatul ci kaw suuf mooy bu àdduna di tukki borom bi tabaraka wa taala buy tukkal àdduna jamono jooja du fekkati ku baax nekk ci kaw suuf qiyaamu saa buy am kuy wax laa ilaha illa nekkatul ci kaw suuf bu boobaa kon xatta yati amrullahi mooy ba kero saa di taxaw wala lu ko jiitu boo xamee ne jëlee nañ fa ñu baax ña ngir tukkal àdduna mbokki jullit yi jullit bi mën naa laaj ne jullit bi bu xamee yëf yooyu yépp kon lan mooy li nga xam ne wóor na ko ne su ko defee bokk na ci kuréel boobu gannaaw boo xam ne gëm yàlla ak wéral pas-pas wéy na jullit bi su fexee ba mbiram mu teg ko ci sunna lu muy waxe ak lu muy jëfe mu jële ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku bokk na ci ñëw yooyu ma lim yépp boobu moo ko boole looy bëgg a def laajal sa bopp ndax lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne ci diine ji la bokk wala bokku ci su ne ci la xamal ne ca la jàppal su newul ca la xamal ne bokku ci ndax lu ci bokk lu ne rek wax na ko kon jullit bi foofu lay teg mbiram fi lay tëral manhajam moo tax ñi nga xam ne ñooy alfirqatu yi dëgg-dëgg mooy ñi xam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba di ko dund bañ tudde leen ahlul xadiis ci sababu seenu jàpp ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al imaam Abdullah ibn al rahimahullah biñ ko laajee ne ko at taifatul mansuura kuréel boobu nga xam ne mooy bu mucc bi ñu dimbali mooy ban daf ne hum indi asxaabul xadis ñooñu day ñooy waa xadis waa xadis maanaam ñooy ahlu sunna al imaamu albuxaari rahimahullah biñ ko laajee loolu daf ne al imaam ali ibnu madini day nee na ñooñu ñooy asxaabul xadiis al imaam ahmad ibnu hanbal ñu laaj ko kuréel boobu mooy ban mu ne su fekkee ne du mooy ahlul xadiis de su leen doonut kon xawma leen maanaam gisuma fi ñeneen ñu yor melokaan yuñ mën a askane ci kuréel boobu ñu dul ñooñu kon mbokki julli di lu tax imaam yooyu ñépp ñi àndandoo kuréel boobu ci xamle ko ñu xamlee ko ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kenn ku nekk xam na ne ahlu sunna bu dee jàng xadiis ñoo ëpp nit ñi effort ci jàng xadiis ak xam ko ñoo gën a sonn ci défendre xadiis muy sunna ñoo gën a sonn ci jafandu ci li nga xam ne xadiis da koo andi muy sunna ginnaaw ñoo ko gën a def ñépp kon ñoo gën a xam nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la doon dund lan moo doon pas lan moo doon ay jikkoom lan mooy siiraam ni doxalinam ak dundam kooku ñu yittewoo xam-xamu sunna ak xam-xamu xadis ñoo ko gën a xam ñeneen ñu dul ñoom su ko defee suñ ca yaroo boole ca moo tax boroom xam-xam yooyu ñu dëppoo ci ne ñooñu ñooy ñooy al firqatu naajiya maanaam ñooy kuréel bu mucc bi kon mbokk jullit yi nan jéem nan jéem nun ñëpp jàppalante ci dund manhaj yoon woowu xàll woowu nga xam ne mooy xàllu ahlu sunna wal jamaa ndax kat ñooy kuréel bu mucc ba te ku xam ne ñu mucc fii lañ jaar nga xool gis feneen nga de bàyyil ma jaar fële su boobaa ci sa kanam boroom da nga ñàkku lay dadi nag la jub te baax ña ca jaar faw ñu sonn danañ sonn ci seen jëf danañ sonn ci seenu dund danañ sonn sax ci seenu jaxasoog nit ña xeetu lor wu nekk ci wax jëf mën naa dal ci seen kaw waaye su boobaa la jaadu mooy situation bu ne nga yor melokaanu alfirqatu naajiya su musiba wàccee ci seen kaw ci wax wala ci jëf lañ doon jëfandikoo mooy muñ roye ko yonent yàlla ya ak seeni nattu roye ko njiiti lislaam yu baax ya ak nattu yañ leen tegoon ñu muñ ko te seeni nettali fees dell ci alquranul karim loola doy na jullit bi sëkk mu mën caa jafandiku li féeg mi ngi doon koo xam ne kuy jàng la di xam ànd akum xelam te wéral yéeneem fas yéene topp boromam tabaraka wa taala allahuma ajcalna min ahli sunnati waljamaa لنكون من الناجين في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وكل من سار على هديهم إلى يوم الدين اللهم إنا نجعلك أن تجعل نسألك أن تجعلنا منهم وألا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت